lépp kon lu soxal secteur hôtelier fii ci Sénégal ak kile di Mansour Gueye Mansour Gueye moom mooy secrétaire général bu syndicat des hôteliers euh, du Sénégal ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw maa ngi leen di fay Sabine Moro di nuyu bépp auditeur bi nga xamante ne ni am nga habitude di déglu émission bi. Mhm. di di di rafetlu aussi invitation bi nga xamante ni def ngeen ko. voilà ñu lay remercier kon bu baax a baax ci sa disponibilité euh, ngeen samp ab syndicat syndicat des hôteliers du Sénégal lan moo ko tax a jóg exactement. waaw syndicat bi li ko tax a jóg bari na ndaxte yoon moo maye liggéeykat bu nekk nga am syndicat bi nga xamante ni nga taxawal ko sa pour boo amee jafe-jafe mu mën nga taxaw syndicat ji nag. ñu dañ ko euh, sos taxawal ko ci FGTSB dirigé par Sidiya Ndiaye ah ñu xool ne secteur bi camarades yi ci nekk taxawal di ci wuyoo responsable hôtellerie yi mhm. vraiment lu bari da ci manqué ba tax na liggéeykat yi gisatuñu seen bopp sax ci syndicat hôtellerie yi ba gis nañu ñuy ñuy forme ay euh, association ci biir entreprise yi nga xamante ni ñoo gën a rëy ci hôtellerie yi loolu day wane ne ñoom amatuñu qualité ci syndicat yi leen jiite. léegi moo tax ñun voilà mhm. ay ca mhm. moo tax ñun ñu créé ko pour changer euh, doxalin bi nga xamante ni moom la syndicat yi fi yàggoon nekk waaw te boobu ba léegi wax dëgg yàlla ah, sant nañ ci yàlla. yéen lan mooy seen touche original yéen yi lu leen wutale ak yeneen syndicat yi fi nekk ci wàllum hôtellerie. bon ñun li ñu wutale. Mhm. mooy que ni ñun am nañ sañ-sañ bu liggéeykat yi nekkee ci jafe-jafe ñu taxaw wax ko. Mhm. te loolu moo taxoon liggéeykat yi du ut syndicat. te ñun rek la ñuy dégg. Mhm. ba mbas mi commencé ba léegi même avant mbas mi. ñuy wax ci problème mu hôtellerie. te ñoom wax dëgg yàlla. li ci disposition yi ci état bi jël yépp mu léger secteur bi li ci def ay accords yoo xam ni secteur bi gisuñu ko ñu ngi wàññi nit ñi te ñoom gisuñu kenn kenn kenn ku wax ci ñoom. donc gis nga ni yéen ni ngeen di xeexee seen syndicat amul beneen syndicat boo xamante ne tey jii taxaw na di xeex ci secteur bi. mais yéen yéen yéen rek mën ngeen ko firnde amul benn benn manifestation boo leen couvrir boo xam ne beneen syndicat bu hôtellerie mi ngi koy def. ñun loolu moo ñu xaw a jaaxal ñu bàyyi benn nit muy raasin fii di def li ko neex ci hôtellerie te raasin këram ga mu nekk di kimpat mm-hmm. syndicat yi nga xam ne ñoo ëpp doore ñoo fa nekk mm-hmm. te ñu kenn ku ku sax ànd ak liggéeykat yi xeex loolu lan mooy problème mu Racine Sy si boppam ba nga ba nga cité ko waaw parce que hôtel yi bari na mais lu tax nga indexé directement Racine si racine moom moo yenn syndicat patronat bi. Mhm. te disposition yi état bi jëg yëpp ak réunion yëpp racine fexe na ba du ci convoqué benn central benn syndicat professionnel bu hôtellerie. maanaam décision yi ñuy jël yëpp ci hôtellerie. Mhm. patronat bi dañuy convoqué équipe racine te ñun kenn duñu convoqué waaw léegi nag loolu ñu ne ñun ñun doot ñu ko si nangooti te doot ñu ko seetaan bi waaw jóg nañ pour mu dakk yéen daal da ngeen jóg pour xeex voilà. Hmm? non xeex bi mu su amee rek xamal ni ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo deful lu leen war. Mhm. ndaxte ñun def nañ alerte. Mhm. depuis bi ñu euh, de presse bi vendredi passé ah je pense que ñun dinañ ñu dégg loolu la ñaan mais buñ ñu ko kiiwul kenn du ñu arrêté ñun syndicat la def. léegi bala ñuy bala ñuy ñëw sax ci Covid 19 bi ak jafe-jafe yi indil ñu nekk yéen hôteliers yi mais mhm. dinañ la laaj seen syndicat bi comme que nee nga euh, moo gën a original wala touche bu mu apporté ñeneen ñi andi wuñ ko euh, yéen ban ban atteinte ngeen amoon maanaam bi ngeen di ñëw am nga fu ngeen fekk hôteliers yi lan ngeen xeex euh, ba am ko ci seen syndicat yéen lan la seen syndicat xeex ba am ko ci secteur bi. Euh, li mu xeex li mu xeex bari na c'est-à-dire ñun dañu booleekul ci ñi nga xamante ni nii depuis boobu ba léegi dañoo léger ci euh, syndicat hôtelier yi mais mais am ñun yuuxu nañu ba bi ñu defee retraite à cinquante six ans signé ak yeneen kii yeneen syndicats yi de base yi ñun ñu fexe ba ba chaque euh, président de la République rectifié ko ci ci 2016 boobu CETSIDIA mm. mm-hmm. le secteur général national moo taxaw devant le président de la république rappelé ko signature bi nga xam ne defoon na ko pour le secteur euh, privé pour la retraite à soixante ans ne ko hôtellerie ci boppam nanguñ ko respecté mm-hmm. loolu yaakaar naa ni ñun xeex nañ ko ba décision bi président président revenir ci bañ commencé ko appliqué hôtellerie ndaxte ñun mënuñu nangu ñu ne secteur privé bi mm-hmm. Euh, en 2016 président accordé ko yokk prime de transport yokk euh, cotisation syndicale yeneen syndicat wëlbatiku ci secteur bi dem di ak Racine Sy ki nga xam ci boppam ñoo ko njëkk a kii pour la retraite à cinquante cinquante six ans dans l'hôtellerie mais ñun ñoo ko dindi loolu ñoo ko dindi ba tax na léegi problème boobu amatul autonomie. Mhm. ak la waaw malgré nag ñoom ñoo ñu njëkk ci terrain bi de dañ a le reconnaît. Mhm. mais nag ñoom wax li seen seen noppi daal xaw nañu jaaxal. mais mais mais lan moo tax Mansour euh, Gaye suux comme ça yéen comme jàngalekat yi ni ñuy yëngu yëngu yëngalee bañ dégg leen xam ne vraiment ça ne va pas dans le secteur yéen hôteliers yi du ngeen koy faral di def peut-être parfois ngeen def ay conférence de presse wala euh, premier mais ngeen def marche euh, yore seen i pancarte wax seen i jafe-jafe bu weesoo loolu du ñuy gis ngeen di def ay yëngu-yëngal vraiment ñu xam ni y a des problèmes dans le secteur pour mën ci taxaw lu ko waral. bon xam nga organisation bi jàngalekat yi nekk forcément man fa laa jëm ak liggéeykat yi mais fa ñu tendre leen la main pour ñu def noonu xam nga nag moom sonal appartenance syndic central bi ndaxte tey bu Mansour waxee pour intérêt liggéeykat yi ki nekk synthèse du ko gisee noonu te loolu tant que ot liggéeykatu hôtellerie gisuñu affaire boobu ba dindi ko du ñu mën a nekk benn pour régler le problème de l'hôtellerie jàngalkat yi nag ay sympathiseurs yi ñoom dañoo regroupé wu dans dans l' essentiel former seen i kuréel génn central syndicat yi yor seen autonomie est que xam nga li ma la loolu nag mooy problème mu hôtellerie tant que génne wuñu yi ñu bokk di ko mbubboo central yu mag yi ñi ñuy waxal ñun du ñu dem. loolu nag ci lañ jëm moo tax ñuy lancé appel dañuy def tournée. Mhm. su fekkee ni vraiment woowuñu ñu waxuñu ñu woo tournée def dans les hôtels ak restaurants yi dajeeg délégué du personnel yi wax ak ñoom. Mhm. mais mais yéen lan moo tax ngeen bootu ci Sidya Ndiaye gis nañ ni mu ngi leen di soutenir ci xeex bi lan nga ñu mën a wax par rapport ak Sidya Ndiaye. non xam nga Sidya. Mhm. ak lu nit mën a bañ bañ bañ Sidya. xam ni moom rek moo fiy syndicat. ah bon yàlla dafa dogal ñu bokk ci central am. Mm-hmm. nit ki nag bu dee sa kilifa nga bokk ci central am looy def da nga koy yëgal. waaw. waaw looloo tax nag ñu jiital ko te am na fu ñu bëgg a àgg moom moo ñu fa mën a àggale ndaxte boo gisee ñu ne confédération wala fédération jël kenn jiital ko kooku la autorité yi di gën a xam ndaxte yàlla dogal na am na loo xam bu ñu ko wax mais bi ñu defee conférence de am nañu échange ak moom ñoo xam ni woowuñu ma ci autorité yi de haut niveau le premier personnalité du pays wax naa ak moom. Mhm. waaw loolu nag moom la ko yàlla cëralee dañ ko koy jox di ko ñaanal yàlla yàlla fëgg boppam. léegi mi ngi leen di jàppale ci xeex bi bu baax a baax a baax. Sidiya même ku bokkul ci central am sax da lay jàppale. Mhm. sàkkamtuma la ak ñun nag ñi nga xam ne ni moom ñun moom la tiitaroo. yow tey ji ah. Mansour boo doon natt euh, au conseil du dialogue social parce que au conseil du dialogue social euh, bi ko président di teg c'était pour grève sax bañatee am euh, ah. ba ñu signé pacte social grève bañatee am Sénégal ñu signé pacte social mais ah. kuréel googu gis nga ba tey syndicalistes yi ñu ngi yëngu di yëngal liggéeykat yi ñu ngi yëngu di yëngal en tant que syndicaliste tey boo lan mu nga xalaat ci au conseil du dialogue social pour est-ce que yow am na njëriñ amul njëriñ mi ngi def rôle am deful rôle am est-ce que mu ngi leen di jàppale si xeex bi. xam nga au conseil dafa am limite au conseil mënut a tere grève mënut a ordonner grève moom médiation rek lay def. Mhm. bañ na ka ba sax du obligation nga saisir ko ñi koy saisir bariwul xam nga dangay ngay créer institution boo xamante ni amul pouvoir kooku njariñ li bariwul xam nga man o conseil. Mhm. suñ bëggoon grève parents yi ba bañ am man sama proposition booy ñu dooleel inspection jox leen pouvoir décisionnaire. Mhm. yeneen certains points de droit yi ak yeneen bañ a dem tribunal ndaxte bu njëkk ba su la inspecteur Moussa defal mise en demeure loo jàppoon da koy bàyyi. Mhm. mais léegi ce n'est plus le inspection dañ ko léger ba mu ëpp. li li li li ministre bi bu bëggee grève wàññeeku. waaw wala licenciement wala yëngu-yëngal ci travailleur yi. Mhm. lépp loo xamante ne ni liggéeykat bi waroon na ko am te patron respecté wu ko ba mu des dommage intérêt nañ delloo pouvoir bi inspection du travail ñu xool. d'accord pour yow daal au conseil du dialogue social amul njëriñ kon dooleel inspection du travail moo gënoon. waaw xam nga bu fekkee dooleel luñ ko. mun inspection bu fekkoon ne au conseil boo ko si même boo leen jubóoloo mënalu la dara. waaw. waaw mais boo créé institution da koy jox doole. mais ko doole boo xamante ne fan fan la kii yam yam maanaam médiation lay def fan la yam moom. Euh, lan lan la mën a def ci diggante euh, liggéeykat yi ak euh, nguur gi. li mu man mooy. Mhm. jege na président de la république. nga bañ mu jox mu wax président président joxe institution ci yeneen yeneen yeneen kuréel yi. mais moom ci boppam amul tubaar boo xam ne bu la signalee nga bañ mu mu daan la kon kay man kay man commission boobu sa nit ki boo koy jox doo ko jox bopp rocc làmmiñ d'accord pour yow daal dañ ko fi teg nii rek nañ nañ ñu wax ban ban ban njariñ ñi am ak ak lan lañ mën a liggéeykat yi wala patronat léegi tey ji tey ji bala ah. ñuy ñëw Mansour Gaye ci ci ah. ci ci Covid bi euh, ah. avant Covid lan mooy euh, problème euh, ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôtel yi. hôtel yi seen problème bi ci njëkk. waaw. te ñun ñaanoon nañ yàlla buñ toogee autorité yi wax leen. Mhm. bi ci njëkk mooy équivalence. équivalence yow boo ko déggee mooy nit ki da koy liggéeyal yow boo dee cuisinier chaque chaque semaine mën na la liggéeyal juróomi waxtu yu yu tege ci sa quarante heures yi ko signal te du la ko fay soo bokk secteur cuisine dix heures de temps la lay liggéeyloo te du la ko fay léegi bala ngaa am heure supplémentaire bu dee cuisinier da ngay dépasser quarante cinq heures quarante cinq heures bu dee au beneen secteur bu dul cuisine cinquante heures de la de cinquante heures la ngay door a fay heure supplémentaire te ki mm-hmm. ko fi ki ko fi instauré depuis temps temps o gouverneur de de l'AEF mm-hmm. nee nañ chef de chef de cabinet du gouverneur moo ko moo ko signé woon mm-hmm. ci histoire laa lay wax waaw te loolu biñ koy def boobu ay ñetti hôtel ñeenti hôtel moo amoon Dakar ay hôtel di marché lañu waxoon Teranga ay Pullman yooyu daal ñoo ci amoon léegi nag il s'est trouvé que ni mën nga toog pendant une heure de temps doo am client deux heures de temps ñu ne nag loolu ñu tuddee ko heure morte. Mhm. ñu ñu autorisé patron bi heure yoo xam ne daf ko ci dolli. bu mhm. yoo xam ne du ko mën a fay liggéeykat bi. te yooyu ay mille neuf cent cinquante ak loolu loolu. Mhm. ba à soixante comme am nañu indépendance. le président de la république moom rek moo ni ci mën a dimbali équivalence jóg hôtellerie loolu rek mooy problème hôtellerie hmm. équivalence nañ ko dindi premièrement. d' accord. voilà. loolu mooy problème mu hôtellerie fi nii ci Sénégal fi ñu nii. ak li nga xamante ni. non boobu dafa bokk ci ay problème am. d' accord. mais problème bi mooy. Mm-hmm. secteur bi ci boppam amul sécurité. manque de sécurité. manque de sécurité pour conserver emploi yi. Mm-hmm. ndaxte restaurant bu la gën a yàgg fii su defee cinq ans. ut na lay tëj ko nga xam ne doxatul dem yoonam fekk liggéeykat yi ci boppam commencé am beneen vie de famille. Mm-hmm. am ay jabar ak doom. Mm-hmm. nga licencier leen dem demander ay motifs économiques wala fermeture liggéey ko yooyu dem di wër mm-hmm. loolu mooy problème hôtelier ce que est-ce que fay bi baax na est-ce que ñu ngi fay euh, les employés lu baax ñu nekk ci hôtelier est-ce que seeni salaire baax na wala baaxul. non salaire ci selon catégorie bi nga kii vraiment réviser nañ convention bi. Mhm. mais li koy kadi mooy heure yu bari yooyu ñu lay liggéey loo te la ko fay. maanaam expliquer. maanaam di lay di chaque semaine ñu liggéey loolu fukki waxtu yoo xam ne duñ la ko fay mais loolu loolu. ñu bokk ñoo ko. liggéey loola fukki waxtu fukki teg ko ci semaine bi cinquante heures. ci semaine bi yoo xamante ni quarante heures lañ lay fay le contrat c' est quarante heures. Mm-hmm. xam nga loolu ñun bokk ñoo gardiennage. Mm-hmm. ndaxte ñun secteur hôtellerie dafa xaw a metti da ngay jàng am niveau intellectuel ba pare dem utiwaat diplôme professionnel pour nga mën a liggéey hôtellerie. Mm-hmm. ndaxte mënoo nekk cuisinier te jàngoo ko. même c' mënoo jàng pour servir sax te jànguloo ko. waaw léegi nga fay école yi cher ba génnaat ba pare ñu ñuy imposer équivalence boobu ba léegi. nañ ko dindi. d'accord pour hôteliers yi mën a gis seen bopp. d' accord léegi euh, tey jii Mansour dinañ la laaj sa xalaat ci wàllum tourisme bi gis nga tourisme bi depuis euh, sax euh, Youssou Ndour nekkoon fi ministre wax ay visa biométrique ainsi de suite si la commencé di am carrément problème tey jii yéen ñi nekk ci hôtel yi est ce que yéen a ngi dund crise boobu santir ne vraiment tourisme am na problème au Sénégal parce que gars yi ni ñu doon wàccee ni ñu doon ñëwee ñëweetuñ ko. bon xam nga euh, loolu ñëpp sentir nañ ko. Mhm. bu njëkk ba manque de sécurité lañ daan wax. ndaxte Sénégal yi dañuy sonal tourisme yi ba mu ëpp amul sécurité. Mhm. far yàlla dogal ñëw mbas mi dolli ci. waaw mais depuis boobu ba léegi ci la commencé daw dëkk bi di dem ak ñëw. Mhm. waaw looloo euh, crise boobu amoon ci suñu secteur mais le problème de tourisme. Mhm. mooy le ministre du tourisme. ci boppam moo laajul xalaat acteurs syndicaux yi. d' accord yéen yéen lan mooy si seen xalaat pour suqali tourisme bi parce que xam nañ ni instant dafa dee avant sax Covid bi Covid bi ñëw vraiment yóbbu ko à terre. waaw bon xam nga dee na deewul manque d' rek moo ci am ndaxte man mënu ma concevoir en tant que hôtel boo dem wala restaurant kër de métier yi fa nekk yëpp Sénégal yi ñoo koy dirige pourquoi état mënut a financer les Sénégalais ñoom ñu diriger affaire yi à chaque fois ñuy revendiquer yëpp yëpp yëpp yëpp ci tourisme mooy étranger yi ñooy ñëw fii def seen euh, investir ubbi ay hôtel wala ay restaurant te ñoo ñu ko ubbi yëpp amuñu diplôme professionnel duñu nekk ci hôtel yi duñu nekk ci restaurant yi ñoom mu liggéey rek ñu jël seen bénéfice dem la ñuy def loolu nag système boo xamante ni ñooñu bu ñu amee li ñu bëgg dañuy retourner seen dëkk yi mais Abdou Diouf Abdou Diouf defoon na ko fi des années quatre vingt dix boulangerie Kapa bi étudiants ñoo koy dirigé woon financement bu mu defoon dajale ay am ñu liggéey mu financé leen ku nekk def sa projet mais pour pourquoi dajale ñu hôteliers yi hôteliers yi financé leen ñu ubbi réseau yi nañ ko def ñu xool ba xam dinañ déggati secteur hôtellerie wax. est-ce que est-ce que est-ce que yow jàpp nga ni le fait que euh, dëkk boo xamante ni sénégalais bu fay dem ñu laaj ko visa ñoom bu ñuy ah. ñëw ñu laaj leen visa est-ce que loolu euh, dafay rey wala dafay dundal secteur bi surtout tourisme bi. non du dundal du dundal secteur bi il faut ñu xam ni yàlla moo moo moo jàng. Mhm. sa baaraam sax tolloowul xam nga man léegi souvent damay dégg ne sénégalais bi dafay ñu laaj ko visa te fii fii bi ñu doon ñu laaj visa. xam nga ki lay indil bokk ak kuy uti yow miy uti mais ñoom bu leen neexee teg la ay condition mais kiy indi au moins dina employé say doomu réew kooku boo ko naree teg yenn coono yi mu dem beneen dëkk moo tax Sénégal yi nañ bàyyi loolu ci xel ñu nag ñoom ñu bokk yem yàlla moo def loolu. donc jàpp nga ni vraiment du du jëmale secteur bi kanam ay gàllankoor la fi indi. baaxu ci. ak fi ñu toll fi réew mi ak ressources yi fi am et tout nga yaakaar ni buñ ko tegoon san ça ne va pas passer. du même buñ ko tegoon laaj leen ay visa affaire yooyu du dem man li ma la noonu du dem ndaxte ñoom dañ bu leen neexee ñëw bu leen neexee toog. Mhm. te ñoom buñ ñëwee dañuy dimbali doomu Sénégalais yi waaw. léegi nag wa ilaa ñu si système bi mais tourisme yi moom il faut laa ñu am ñu favoritisme boo xamante ne ni bokkut ak ñun ñi nga xam dañuy jóg fële di dem ñun defuñu tourisme ñun dañuy uti ñoom uti wuñu dañoo am ñëw di noppalu si waaw kooku boo ko deful benn favoritisme wax dëgg yàlla ah bu toogee ci kan lay metti d'accord ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii ñuy waxtaanee euh, jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekk ci secteur euh, hôtellerie file ci Sénégal ak hôtelier jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy jànkonteel actuellement ak Covid 19 bi Mansour Gueye nekk secretaire général bu syndicat des hôteliers du Sénégal ñu lay laaj hôtelier yi ak Covid 19 bi naka lañ ko dundee. waaw xam nga ñun. si yaakaar waaw expliquer carrément ñu xam. lu ngeen di dundu actuellement. li ñuy dund fi toll ni koo ko natt rek wees na ko ci coono te yaakaar naa ni ay mesures boo koy jën secteurs yi ko bokk da nga leen war a woo waxtaan bala ngay génnee yenn décisions yi ci seen kaw ndaxte ñun bañu ñu aar population bi mais ñun même bu dul même bu dul maladie ñoom sax ci seen bopp autorité suñu ci ñun lañ woo wóoloo lekkee ca lañ wóoloo fanaan. Mhm. ñun ñoo leen di defal lépp mais ku mel noonu bala ngay jël mesure yoo xam ni muy perte emploi mais nga nga discuter ak moom mais toog ak ñoom ci seen biir rek avantage yu patron bi xaw ma nag dil buñ la def la ak ñoo ak patronat ndaxte da leen di permettre ñu fermer wala ñu réduire heures yi wala ñu def benn système boo xam ne di liggéeykat bi dootu ci gis boppam. Mhm. moo tax ñu ne ñun d'accord ko. ndaxte journée bi bu fekkee ni maladie bi rek la ñuy wax nit ñaa ngi dajaloo ci oto yi ñu ngi dajaloo ci marché yi ñu ngi dajaloo ci école yi daanaka sax respecté wuñu sax ñun li ñu respecté te ñun boo demee ci resto yi mesure barrière yi depuis ba mu commencé ba léegi ñu ngi koy ñu ngi koy respecté distanciation bi ñu ngi koy respecté demal resto boo dugg bu client bi toogee fii dañuy respecté plus de un mètre mhm. mais ñun suñu principale activité le soir lay tàmbali resto boo gis am na ñoo xam ne sax midi la ñuy démarrer wala onze heures mais kooku mi ngi compter liggéey de de midi à cinq heures du matin léegi nga ne da ngay arrêté euh, nit ñëpp vingt et une léegi ñooñu forcément seize heures wala dix sept heures dañoo war a wàcc pour ñibbi mm-hmm. mais patron bi loo koy waxati yow da naan ko léegi ñu liggéeyul fay leen parfum de mu léegi nag ñu commencé comme li ma la doon wax motif économique wala chômage technique commencé wàññi personnel. Mm. impact boobu état daf ko waroon a xalaat bu fekkee bëgg nañu dimbali te ñoom nee na dañuy dimbali dañ dalee wax ba léegi gisaguñ dërëm ñun. léegi yow ci première euh, euh, premier euh, couvre-feu bi parce que ah. instant ñu ngi si wax yi deuxième vague si première ah. vague bi bi ñu ah. bi ñu bi ñu defee couvre-feu bi à vingt heures état bi waxoon na dina am xaalis boo xam ni daf koy dugal si hôtel yi ainsi de suite est-ce que xaalis boobu yéen ñi ci liggéey ci hôtel yi gis ngeen ko gisoo leen ko jot ngeen ci ndimbal bi waaw wala déet bala ñuy ñëw ci ñu ñu yóbbu woon chômage loolu lañ koy laaj mhm. loolu dégg ma laaj ko président de la ndaxte ba discours discours am bu mujj bi fin d'année bi rappelé waat na ko mais nañu dimbali wax ñu ñan la ko jox yow boo nee patron bi mënoo wàññi mu ne la fonds yi gisuma ko procédure bi may mënaloo ma bañ ko def moo ma gënal état bi di condamné baal na leen TVA baal na leen baal na leen baal na leen la te état bi war naa mën a am fayda bu toll nii duma la jox sama xaalis ba pare pour nga téye liggéeykat yi nga wëlbatiku di wàññi liggéeykat yi. te yow amul benn këru hôtellerie mhm. bu war a am bàyyi kiñ fat wala teeru bi ñoo fi ëpp doole mhm. état seen activité yëpp kiñ fat lañ koy defee ak teeru bi te ñoom ñoo wàññi li ëpp kiñ fat ak teeru bi li ñu wàññi moo ëpp teeru bi ak kiñ ñoo ëpp li ñu wàññi ci ñi wàññi ci Sénégal ci mhm. première vague bi léegi nag ñooñu mënuñu yor xaalis liggéeykat yi ba pare di wàññi kon lan moo taxoon ñu leen di jox xaalis bi su fekkee nag ma Macky Sall moom euh, Racine xaritam la ba sañu koo wax ne lii secteur bi nangam ak nangam mais ñun dinañ dinañu dégg léegi nag loolu lañ bëgg mu leeral ko président nañu jox yéen da ngeen bëgg euh, patronat bi maanaam Racine si leeral xaalis boobu ñu jëloon dugal ko ci euh, hôtel yeeg ñoom seen mu leer leer sax bu ko leeralee ñu daf ñu yeb ndax ya Racine faluñu ko Mhm. président moo ko génne na ko président leeral wala le ministre tutelle. woo ñu xaalis boobu ñaata la woon Mansour ñaata la woon xaalis bi ngeen di wax. nee nañ première kii bi deux cent milliards la. bi ñu baalee tey waaw waaw ñu génnewaat beneen deux cent milliards pour ay prêts ay fonds pour ñu mën a ko bénéficier woo ñoom ñoom pour mën a am départ. Mhm. waaw léegi liste boobu nañu toog mais mais est-ce que nekkul xaalis boobu tamit monsieur patron yi rek la concerné borom hôtel yi. waaw mais bu leen concerné. waaw pour ñu mën a supporter salaire la. xam nga mag yi defu ko pour ñoom seen beaux yeux. Mhm. daf ko def pour sénégalais yi bañ a perte seen emploi. te te li dem ci première vague bi buñ ay ñoom sax wax nañ ko ñaar ay milliers de personnes ñu perte nañ emploi. waaw si première vague bi. maanaam dañoo dàq wala dañu yóbbu chômage technique. ñi ñu yóbbu chômage technique est-ce ñu ngi loon doon versé. dañ leen a dàq. dàq carrément waaw motif économique lañ jël. dàq leen. dàq leen daal mais mënatuñu nangam nangam xam nga. teeru bi ak Kinsap lu tax ma leen di cité. Hmm. depuis air Senghor ba léegi ñu ngi fii ñooñu même bu leen état joxul woon dara gis nga état bu am fayda. Hmm. investisseur da nga koy yemale ci war a yem. du ñu employé ay centaine de travailleurs ba pare benn bés ñu dàqale indi la problème te ñooñu ce sont actuellement devenus des milliardaires dans ce pays. Hmm. Racine mooy réfectionné hôtel Indépendance te hôtel Indépendance ba fi ma lay wax liggéeykat yi ñii dee nañ d' accord dàq bi maanaam jékki eh, dañ leen dàq sans motif euh, motif économique lañ kii te amul est ce que àndoon na ak ndàmpaay wala genre yooyu. ndàmpaay bi moo bariwul xam nga motif économique. Mm-hmm. préavis lañ lay fay indemnité de licenciement congé ak benn salaire boo xam ne non imposable. Mm-hmm. boo boo wane daal kenn forcé wu la mm-hmm. waaw loolu travailleur bi def dix-sept nga jox ko ñetti salaire yooyu amat mu mu dem toog. waaw loolu la war a noonu lañ ko defee ci première vague bi. ak seen i morom yu bari. léegi ñi desoon ci hôtel yi di liggéey ci première vague bi te dàquñ leen nu nuñ ko dundee. est-ce que ah, ñu leen doon fay normal seeni i salaire. ñeneen ñi dañ leen yóbbu chômage technique di leen fay cinquante pour cent. Mhm. suñ la waree fay cent mille fay la cinquante mille. Mhm. pendant six mois lu mu la mën a fayal. te yëpp yaa ngi mesure d'accompagnement yi nga xam ne état jox na la. moo tax ñu ne ñun état na toog ak ñun su fekkee ne nag léegi nii. Mhm. dañ leen jox suñu xaay ñu jox ñu ko ñun ñu jox ñu ko ñu ubbi resto yeeg hôtel yi. loolu rek moo yéen daal leen bëgg xaalis boobu leer naa ñi ci première vague bi. na leer suñu wax ci kaw na leer ba keroog ñuy gis liste leer képp ku ci bokkoon ta nga wàññi état daan léegi hôtel yi à un moment dañu ne hôtel yi dañ ko transformé woon ay foo xamante ni les malades Covid 19 wala ñi ñu def quarantaine ñoo fa nekkoon loolu dëgg la wala. ah man de gisuma ko ban hôtel lañ nañ ko. que am na hôtel yoo xamante ni euh, ñi am Covid 19 te xajuñ ci hôpital lañ fa yóbbu wala ñi ñi nekkoon en contact avec euh, les malades yu Covid 19. lañ fa yóbbu la woon waaw. ñu quarantaine lañ mais amul benn hôtel bu ñu. traduire def ko hôtel amul kii def ko hôpital. Hmm. amul gisoo leen ko ko hmm. ah man de gisuma xam nga yooyu sax du pratique. Hmm. ndaxte yooyu bu la ko defee tamit hôtel bi forcément dañ koy fay ci temps biñ ko jël yëpp. donc amul versement voilà ndaxte kenn du jël na du hôtel par force déedéet nguur lu mu am am doole yaa moom sa kër yow lay neex nga jox ko gratuitement wala nga ne da ngeen may fay. léegi nag loolu. Mhm. nañ ñu jox li bi buñ ci reculer. ngeen xam. ñu xam ñan la ak ñan ñoo ko jël ba pare def safaan bi nit ñu xam ni ñu koy toppee te dañuy wax Alioune Sarr suñu ministère ba mu ci ñëwee ba léegi. Mhm. musta convoqué syndicaliste yi patronat bi muy convoqué moomu ñu hôteliers yi ñoom dañoo yor rek seen investissement waaw mais ñu ñooy liggéeykat yi ñu ñoo xam li ñu bëgg ak li nekk ci biir nañu woo ñu toog bu ñu signé ci kayit trois parties yëpp signé. état patronat syndicat yi loolu lañ bëgg. léegi ñu ne ñu ne ci ci ci ci première vague bi tourisme maanaam am na trente milliards de pertes euh, ci secteur u euh, hôtellerie loolu dañ koy dëggal wala ëpp na trente milliards. bon xam nga état mooy wax loolu. Mm-hmm. mais man gisuma ci côté patronat bi pertement am ci. ndax ci la baal tey ba yam mm. taxe ak yeneen yi pendant trois mois comme ni ñu koy waxee ba pare jëlaat xaalis lebal la. Mhm. jox te fonds boobu ba léegi utiliser woo am na si ñoo xam ne sax ba léegi dañoo fermer di xaar affaire bi démarré waat ñu ubbi leneen tudd leneen pour ñu bañ leen topp ndaxte xam nga motif économique boo ko defee eh, kii euh, travailleur bi nga xam ni moo ci bokk day am période d'embauche de ña de deux ans nga xam ni fii ak ñaari at amatoo droit jël keneen ci place léegi nag dañ dañ dañuy dévier loolu dem def de ubbi leneen léegi nag boîte bu nga xam ne moo la employé woon doot fa nekkati. maanaam dañuy jël koppar gi dem investir si leneen. mais noonu la ñuy def dañuy dem beneen beneen secteur ubbi fa beneen restaurant tudd leneen. Mhm. léegi nag yow sa boobu doo ko mën a topp ndax sa contrat beneen beneen resto ci nekkoon. Mhm. mais même patron bi moo fay toogaat. utaat ñeneen ñu bees léegi liggéey maanaam ñi ci dee daal ñooy personnel bi nga bëgg a wax mais pas les moo moo ciy dee te bu yàggee contrat CDI Sénégal jaratul muy am mhm. ndaxte amul benn garantie ndaxte dañ ne ci texte yi à chacun des deux parties pour rompre le contrat loolu texte boobu dañ ko war a changer un CDI bu def dix ans wala yooyu actionnaire la ci kër boo koy licencier mooy pouvoir yi ma lay wax dañu war a demander autorisation bi inspection du travail mu xoolaat bu baax ndax kii war nañ ko dàq wala déet mais li ngeen di dund nii Mansour xam nga li li nga expliqué nii c'est c'est très grave ngeen dundu ko ci Covid 19 bi. lan moo tax carrément defoo leen yëngu-yëngal ba njiitu réew mi xam xam ne man koppar yi ma jël def ko ci secteur bi ña ca war a jot jotuñ ci. mais ñaata yoon yëngu-yëngal ñun RDT fu Sidiya ci doon na xam mais xam nga Sénégal la ma leer mooy liggéeykat yi ci boppam lañ xamul du ñu bëgg topp koo xam ne jaruñu la dara. te tey bu ñu demoon élection représentativité ñu joxaat leen voix yi te bu la bëggee dëgg moom rek moo fi wax problème liggéeykat yi loolu mooy liggéeykat yi ñoo war a ci seen bopp gis nga syndicat euh, daa am fu fu lay jariñ rek bu la fa jariñ nga nga bàyyi ko dem seeti keneen mais ñun depuis le début mos mos naa ci def euh, conférence de presse des naa ci déclaration ci rajo yi. na xaalis bi leer depuis première vague xaw ma ndax de jotoon ngeen ci wala de defoon naa ci déclaration def naa ci lépp alerte gouvernement bi ci licenciement yi ñuy def ak motif économique mais malheureusement dañ naan ah oui tey wax xam naa ni comme syndicat yi ñeneen ñi waxuñu rek am amutu am impact mais cette fois ci bii moom day uti léegi ah, léegi ah. gis nga jafe-jafe yi bari na ci première vague bi euh, ñu lever woon euh, pratiquement mesures yi baree bari nit ñu commencé waat dund seen dund comme avant euh, ñu jékki-jékki nga gis jëlaat nañ ay mesures yu bees indiwaat couvre-feu bi mu laalaat leen carrément comme ni nga ko waxee lu ni naka ngeen fas yéenee def pour peut-être euh, protéger seeni emploi ci période Covid 19 parce que couvre-feu bi ñëwaat na vingt et une heures ainsi de suite te wax nga ko léegi ñi muy gën a laal bokk ngeen si. non moom li ñuy def kay mooy li ma wax rek ci bis yi di ñëw. danañ mhm. yi échanger ñoom ndax lépp lu ñuy def ñoo am defandoo ko ndaxte bii li tax mu gën a metti mooy amul mesure d'accompagnement boo xam ne état bi daf na secteur bi maa ko dimbalee lii mais yow ki nga dimbali mu wàññi. boo ko dimbalee tuur kay day tëj ñun xam nañ ni ñun fa lañ dañuy fet seen seen i seen i liggéey. Mhm. bala ñu cee àgg nag ñu organiser wu. naka naka ngeen fas yéenee def exactement Mansour. dem ci eh, këru liggéeyukaay. Mhm. dajeeg ñi nga xamante ni ñoom la travail di sal ñuy délégué wax ak ñoom. même syndicat yi sax bool bokk na ci suñu programme dinañ wax ak ñoom. ku ñëw nag pour intérêt liggéeykat yi ñu ànd ak yow liggéey ku ñëwul doo ñu tey def li ñuy def ndaxte xoolal lii dafa ñaaw. Mm. ba mu amee ba léegi ñoom ñoom seeni liggéeykat a ngi ci bokk ñëpp te ñoom moom mooy sañ jël micro bi wax. ndaxte fi toll yi benn syndicat bi day yaakaar ne impact bi amul. Mm-hmm. ndaxte kii bu amoon ñeneen ñi wax. Mm-hmm. te ñoom yàlla xam nañ xam nañ li ñuy def àq. ndaxte yow syndicat amoo salaire liggéeyatoo. li sama benn grand doon syndicat yi ñooy cimetière des personnes licenciées koo jege dañ la dàq commençant par Maji Diop soba ñoom ñëpp dañ leen a dàq dàq ñoom Giro dàq ñoom Cheikh Lo tout administration rek ñoo ci am chance mais tey ñooñu buñ la joxee doole boo xamante ni bëggatoo sax ku lay fay deux millions par fin du mois ci lim la ko joxe mooy bu amee jafe-jafe nga taxawal ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla war leen rendre la monnaie. institution yi ñuy siégé ñoom. bu du woon raw gàddu liggéeykat yi kenn du fa état du la jëlal boppam kon yaakaar naa ne liggéeykat yi bu amee li problème waroo xaar sa moroomu syndicat sa di la woo nañu jóg yàlla tax. léegi ci deuxième vague bi nii est-ce que am na ñu ñu jot a wàññi comme ni ñu ko defee woon ci est-ce que am na ci hôtel yi euh, ay travailleurs yoo xamante ni yóbbu yóbbuwaat nañ leen chomage wala dàq leen chômage technique je sais pas. ci leen jëm ndax fi mu toll nii xam nga ban organisation la ñuy commencé mhm. système boo xamante ni patronat bi la arrangé même personnel bi la ñuy concerté da ngay déglu de. waaw léegi yow personnel bi soo liggéeyee ñaari fan toog ñaari fan. Mm. léegi salaire bi mu la waroon a fay par exemple bu doonoon talon bu dix millions ah fi mu toll nii dañ koy séddale day séddale cinq millions yi personnel bi te liggéeyam day dox. Mhm. léegi day day dañuy jël par exemple matin bi ba dix sept heures wala dix huit heures nga wàcc liggéey deux jours. Mhm. def continue mhm. te teewu doo matale say heures te ñoom chaque jour ñu ci liggéey mais yow di nga noppalu deux jours ñëwaat deux jours. Mhm. après ñu wàññi sa salaire waaw. waaw dañuy wàññi sa salaire forcément cinquante pour cent lañ lay te amul benn arrêté bu génn pour le ñu ne fay leen cinquante pour cent mais dañ na ne yow mënoo lañ ko imposer ndaxte le soir activité bi amatul. te mënatuñu jël personnel bi yëpp. Mhm. léegi li vingt personnes waroon a liggéey kii quarante personnes waroon a liggéey ñu quarante personnes dinañ ko ne di ko liggéey te salaire u quarante personnes du génn vingt personnes mooy génn ndax ci nekk daa nga liggéey trente jours mais léegi quinze jours ngay liggéey. Mhm. léegi kan moo ciy bénéficier patron te bu yàggee am na si ñoo xam ñu ngi commencé sax def ay procédure procédure pour fermeture. moo tax ñu ne état nag yi wax bala muy ëpp. kon daal gis nga ni moom liy ñëw musiba la bu couvre feu bi continuer. man ne la buñ ci yokkaatee tuuti douze jours la ñoo xawma treize. gis mhm. bu prolongement amee nga xam ñoo ñoom da ngeen yéen sax yéenay yéenay dégg ñeneen ñu dul Mansour bi wax. Mhm. ñun nag dañuy wax ba wax jotee. ndaxte ñun président dafa def tey même pas ñaari fan wuñ ko ci ndax xam nañ ni li ci kanam du du baax. Mhm. bu ñëpp defoon comme ñun wax ji bari waaye mais ginnaaw ñi nga xamante ne ñooy musiciens yi ah ak kër yu rafet yi oto yi rafet ñoo ko yor ñoom ñoo ne dañoo yëg mbas mi sàkkantuma la kii fayee ko cent mille ak quatre vingt mille te fayee koo toog. tey jii di leen defal mesure mhm. def. secteur privé bu fekkee ni euh, secteur euh, musique bi moo ko ëpp doole ci Sénégal wala moo ko ëpp njariñ Macky Sall nañu ko wax. Ah, d'accord ñoom euh, dégg naa la sànq si sa biir wax yaa ngi laal peut-être côté conseil économique social environnemental parce que gis nañ ay syndicalistes yu siégé foofu. Euh, ah. naka nga gisee ay njiitu euh, syndicat wala ay njiitu centrale syndicale yoo xamante ni ñu ngi siégé ci conseil économique social environnemental yow da nga koy rafetlu wala. waaw mun na mënoo ko ñàkk a rafetlu mais la la fa yóbbu na ko def. da gis ni ñoom la leen fa yóbbu defuñ ko. kan nga dégg mu tax foofu wax ci affaire liggéeykat. leneen sibiya rek moo fay sax bu dalee ñu ne ko ñu reetaan ko moo tax mu noppi comme ñoom te conseil boobu mangoog rek. Hmm, mangoog maanaam. ah lu jariñ Sénégal lan la ko jariñ. Idriss Seck mii ñu fa teg moo waxoon ne euh, institution boobu am amulul njariñ Sénégal. Mhm. tey mii nii ba mu yéegee ba léegi day day nominé rek chaque jour nga dégg di chargé de mission chargé de mission te waxuñu ko daal ndax rek allié de taille mais est-ce que tamit lu toll ni syndicaliste nekkul lu baax muy mën a siéger euh, pour di waxal gouvernement bi jafe-jafe liggéeykat yi naka lañ mën a taxawoo liggéeykat yi ainsi de suite boole leen ci mbir mi pour ñu mën koo saafara est-ce que peut-être du vision boobu moo ci am. baax na ci li ma wax état looloo tax daf ñu jox cër ndaxte suñ meloon ni ñu mën a mel billaay problème yi di Sénégal yi jàkkante ko syndicaliste yi la neex rek mais maja ba fi nekkee. Abdou Diouf nekk bi neuvième région la ñuy defoon boobu maa ngi synthèse looy def da ngay tàggu ma jë dafa woon ma jë mais ñoom nag nañ tari saar bi duñu ay ministre ñu ay député liggéeykat yi leen a xaw foofu mosoo dégg ku fëgg table depuis ba ko mag chambre bi defee ba léegi déggoo ko ana ñu ñoom conseil économique social dégg nañ problème bi est-ce que dégg ngay ñëw ñu wax ci problème mu hôtelier hôtelier yi. non non. Ah, yaa ma ko da nga ko fa dégg amul ñun rek ñoo génn gum pour di ci dóor depuis premier vague bi ba léegi nga xam ne suñu te général moom fees na place am mais ñoom ñëpp xam nga boo déggee ñu menacé état rek mooy xaalis bu leen war a jox te joxuñu leen. Mm-hmm. ay trois cent millions financement central syndical yi te yow doo ci jot. mais est-ce que nekkul Mansour li nga expliqué nii chômage bi ñu yóbbu euh, travailleurs yi ainsi de suite comme ça li wokk hôtellerie euh, pratiquement moo wokk secteurs yi bare bare est-ce que nekkul lii moo jur phénomène u euh, Barça wala Barsaq bi am actuellement non bokk na ci ndaxte gisuñu koy wax gisuñu kuy wax dañ jàpp benn rek dox muy bu muy bu mi te loolu warul am ci dëkk syndicaliste yi li ma lay wax nii billaay walaay gis nga buñ meloon ni ñu war a mel lu ñuy def ci dëkk bi lañ koy seetaan ndaxte bërëbu liggéeykaay boo dem am nañu syndic dañoo bokkul central mais ñoom ñëpp buñ booloo nekk benn def grève générale dara du dox état bi lu mu jàppoon dina ko bàyyi li jàppoon kay mais yow koo xam ne balay def sa dalay cër suy outil prêt à l'extérieur sa yóbbaale la te huit cent et quelques muy dem ñoom syndicaliste même sidiyaa rek moo demul ndaxte ñoom dañ ko écarté ne bokkul ci quatre représentants yi ñoom ñëpp a demoon ànd ak président mais yooyu lañ war a arrêté ñun liggéey man liggéeykat moom ma gën a tax gouvernement man man ci lay de man Mansour ndaxte man xam naa li tax euh, ma opté def syndicat xam naa li ci ne mais ñun nañu fees suñu place mais foo dem liggéeykat yu bari syndicat ñoom lañ def li ñu def li coono gi ñuy def loolu baaxul voilà Mansour xam naa dernière question buñ lay laaj c'est par rapport ak yan solution lan ngeen bëgg exactement par rapport ak jafe-jafe yi nga xamante ni actuellement yéen a ngi koy dund ban appel ngay lancé directement sax laay wax le président de la république. waaw li ñuy lancé mooy waxoon nañ ko ko duñ koy njëkk ñaan mooy na jël décision arrêté demande motif économique yi ñuy def inspection. na dooleel inspection ba nga xam ne inspection da koy rejeté nga xam ne patron bi dun na ko déet du du ne dama koy def malgré déet liggéeykat bi di dem tribunal décision yi nañu ci dimbali ndaxte moment bi dafa grave impact bi am na te xamuñu kañ lañuy topp ministère du travail na ko da ko jox autorité kii boobu waxtaan ak moom pour mu wax ak inspection yi nekk Sénégal yépp nga xam ne képp ku mën a procédure boobu ci entreprise bu mën a doon moo xam ko côté hôtellerie beneen secteur bu mënti bokk duñ la ko autorisé. fermeture c'est pas le moment nit ki doo liggéey 17 ans xëy xëy nga da ngay ndax di ay lay liggéeykat yi war a dem defi leneen loolu lañ koy njëkk a ñaan ñaareel bi moom ci boppam président xëy na saa bari na pour mu recevoir ñu dana metti am nañ itam nañ ñu woo le plus rapidement possible ñu toog te woote bi bu mu doon patronat bi rek. loolu daal mooy suñuy condition loolu lañ koy ñaan te nag bëgg nañ ko mu def ko lu mu gën a gaawee du ultimement tam du dara mais secteur bi moment bii moo ko laaj liggéey kat yi fatigué nañ te buñ leen seetaanee tamit ah waxuma la Barça war a Barça de mais leneen dina xew. jërëjëf Mansour euh, euh, Gaye ñu ngi koy remercier bu baax a baax nekk secretaire général euh, bu syndicat des hôteliers du Sénégal ñu doon waxtaanee seen i jafe-jafe ak tamit li nga xamante ni mooy Covid 19 bi laal carrément seen secteur ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité di remercier du Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci euh, suñu portail internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.